rahmaani rahiim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisaani yafqahu qawli ñu déglu asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu am seen rajo seen jërëm ci de albidaay ngeen koy am guddi aj mu jot waxtu wi lu si na di leen ko defal si ngeen ci ànd ak seen mbokk alxaaji Sëriñ Mbàkke Sylla ak seen mbokk Alioune Sall den sunu borom subhaanahu wa taala julli ci yonent bi alayhi salaatu salaam ñaan jàmm ci réew ak réew yi ko wër soxna yeeg sëriñ si tabaarakallaahu di ñaan borom subhaanahu wa taala bi gàtt gàtt mbaa mu gudd gudd mu jëriñ ñu jëriñ leen tabaarakallaahu ndax waxtu dafa seer te ngi nii xaaj mag Mbàkke asalaamaaleykum waaleykum salaam danañ dalal suñu ay gan di waa daayira mustarsidin wal mustarsidaati mhm. buñ ca noppee tombeeg min wi jot ñu ànd ak waa rédac waa ànd ak waa rédaction bi ci tënkum xibaar yi ci français ak ci olof dellu si ànd ak auditeurs yi ci téléphone bi ci 88 buñ demee ba une jot ba teg fanweer fanweeri simili ci la ñuy jeexal xaaj boobu dégtalaat leen tafsiru quranul karim bi ñu amoon ay bis gi ñu génn buñ ci noppee ànd ak ñoom ci alkitab ànd ak ñoom ci rijaalun xawla rasul arrasidun buñ ci noppee 5 heures jot ñu déglu alquranul karim 5 heures 30 ñu déglu almisbah 6 heures ñu ànd ak mbokk yi ci waxtaanu fajar yi tey di alxames kon fajaruk àjjuma la waxtaanu fajar wi day baaxoo amub tem tem bi mooy doon ilallahi ibadallah maanaam jéego yi nit ki di jéggi jëm ci boromam subhanahu wa taala oustaz noonu la jotaay bi fas yéene tëddee yàlla mbaaye amiin yaa rabbal aalamiin. 34 minutes mooy jot su ma saana jot nag te ñu amee ay gan daaw ñuy yàggal nuyoo bi. xam ne boo nekk ci biir réew mi wax nañ la asalaamaaleykum boo nekkee bitim réew wax nañ la asalaamaaleykum. xaaj Mbàkke nañ ne ko asalaamaaleykum. waaleykum salaam waaw waaw am gan. waaw dëgg la de yokk ñaax. dëgg la macha allah. alhamdulilah jërëjëf Oustaz jërëjëf ci yaatal googu nga xamante moom nga ci jublu ba tax nga doxale ko noonu. Mhm. ñi nga daan jot a nuyoo ñëpp rek ñu nuyu leen wax ne ku leen doon lim sax ba bët set duñu matal euh, faf nag euh, duñ ko tàmbali ndax ni jotaay bi tëdde mm-hmm. tubaarkàlla oustaz na ngeen def ak coono yi alhamdulilah noo ngi sonn mm-hmm. waaw noo ngi sonn de <laughs> di sonn rek nag lool rek alhamdulilah ñoo ngi sonn dama ko ñëw ne ci daara yi waaw bu tey noo nga Thiès mm-hmm. noo nga Mboro noo nga sew xaay ndeysaan euh, fas yéen rek tubaarkàlla lu ci nekk ñu jéem koo teg ci yoon bu mu teg ca dëgg la waaw ah, noo ngi sonn de. alhamdulilah waaye nag eh, sunu borom daal daana fay ku sonn. Mm-hmm, mm-hmm. ku ku sonn te sonnal ko daan la ko fay. dëgg la waaw waaw dëgg la ku sonn te sonnal ko daan na la fay. waaw waaw allah kon de tubarkàlla yal na fay la. allahumma amiin waaw ah, comme daan na ko def moom la mu daan def dana ko def incha allah. bu nu fayee ne yàlla ñu bokk lim ñuy fay lépp. amiin amiin yaa ak ñi nga xam ne fu ñu toll ñu ngi jéem a jàpp ci liggéey bi. Mm-hmm. ci seen xalaat. ci seen i jàppale. ndeysaan ci seen i roqandi. lépp ñu ngi jéem a jàpp ci liggéey bi te xam ne liggéey bi du liggéey yóbbu Alioune Sall mm-hmm. euh, déedéet liggéey la boobu diinee ko moom mm-hmm. moo ca nekk nam na bi nag ndeysaan waaw ko ca fekk mu jël dëgg la waaw mm-hmm. léeg-léeg daal nit ñëw fa nuyoo rek ñoo xam ni diw ñëw na waaw nga xam ne kii ak ñëwam am na solo am ñëw am na solo <laughs> xam naa ci daal ñett ba ñeent ñoo xam ne mm. moom saabu bu ci daara ji daara jëg na ñëw nañu fa macha allah ndeysaan ndeysaan tudd leen nag dana leen déranger moo tax duñ leen tudd léeg-léeg waaw waaye daal sunu xol tudd na leen yëg nañ ko nag. te na yàlla fay leen. amiin wa iyyakum loolu moom rafet na lool macha allah. walaay ndeysaan. alhamdulilah <laughs> naka daara yi. daara yi waaw euh, dem nañu Mboro. Mhm. parce mu ñëw na dem nañu Mboro. Mhm. ñëw Thiès. Mhm. ñaari daar yëpp. installé waat sax laay wax. min jadiidin ndax comme ki fi nekkoon dafa yewi ko dem. Mm-hmm. war nañu wutaat ñeneen indi leen fa mm-hmm. waaw ña ngay doxal waa Thiès daal ña nga ca mm-hmm. maa ngi ndonga li Pape ba noo koy ànd ak ña fa nekk te nekkal fa association bi ay Imran macha allah daara ja woon fële ca eh, nu mu tudd ca jama eh, moom fu ngeen ci toll waaw jooju de ñoom Kole. dem nañ ca dimanche weesu pour seeti kook nuñ koy defee ba kii ndax lañ dencoon ñu mën ko ca tàmbali Euh, fu mu yem ñoom fa mhm. jàpp naan daal kolle fi wut nay euh, pexe ak ñoom seen yooyu mhm. <laughs> ba yaakaar naa ne bu ñu delluwaatee jëmbul dana am coppatiku coppatiku waaw macha allah dana am coppatiku insha allah tubarkalla waaye xam nga ni ma koy waxee rek mhm. xam nga fekkee dëkk bi dañ lay may teere ne def ko daara ko ak bu ñu la mayoon terrain ne daara jee ko moom bu ko daara ji moomee mën na koo jaay defar daara jëlee Mm-hmm. waaye soo ne def ko def ko daara nag. Mm-hmm. luñ ko def lu daara rek ñoo ngi tooñ. Mm-hmm. dëgg la. waaw soxna Roqee daf ma doon def léeg-léeg mu ñëw ne ma am daal ma jënd ci gasoil ma taxaw ci station ma jënd. Euh, mu ne ma nag léegi kon su ma la jox dama wax rek am. Ah. te génn ci. ma ne ko ah, boo ne ma jëndal gasoil. moom laay jënd. jëndal boisson. moom laay jënd jëndal fruit fruit laay jënd. tey loo ma ci jënd loo daal loolu laa ci jënd loo <laughs> <laughs> loo ma jënd loolu loolu laa ciy jënd macha allah waaw kon daara ji daal tubaarkàlla ña nga ca mm-hmm. noonu la ñoom ba faal ak gaa koy àndal tubaarkàlla yal na yàlla yokk ci barke amin amin alhamdulilah naka réew meek ay coowam oustaz réew mi de moom daa mel xumb na de waaw noonu sunum réew moom mm. moom rekka mm-hmm. <laughs> sunum réew mm. Gambie melut noonu waaw Mauritanie melut noonu waaw lii bi melu noonu. ah réew dong nga lu tax loolu oustaz man de loolu jaaxal na ma. ñun dañoo spécial. ñun hmm. Hmm. dañoo spécial ni ñu mel moom dama yàlla baal daanaka noonu dong ko mel dëgg la de ndax réew moo xam ne du ñu xëy liggéey hmm. yi xëy di coow rek ba tëdd jot ñu tëdd bu ñu yeewoo tàmbaliwaat waaw léeg-léeg ñu nekk ci benn affaire di ko coow ba far affaire ba jëmm waaw dëgg la di ko coow ba far affaire ba jëmm na taxaw lakkal nu wit waaw lu rek la ko defee léegi coow yeeg wax ji day mu jàgg dangay ngay ñeme mhm. ndax bàyyi Galaay dafa bëggoon a ren mbaamam ma mhm. <laughs> Baye Galaay waaw tong-tong ko waaw fu mu ko wax rek nit ñi di eh Baye Galaay sañ nga loolu mhm. bàyyi Galaay ni ci dëkk ba di ko wax di ko wax ba siiw lool mu doon ren mbaam ma waaw fees toj dugal ci consulateur jeex na naan mbaamam bàyyi galaay mbaamam bàyyi galaay ba déwén la jot ñëpp fàtt nañ mbaamam bàyyi galaay mhm. mu jàll ci leneen ah jeex na ah waaw loo jublu ci loolu oustaz mooy sunu pénc hmm. da ngay jékki-jékki dégg rek ñu indi benn tem hmm. na ca tem ba na ca tem ba na ca tem ba mu yàgg tem ba na jëm ñu hmm. ne ko fu ñu ko jàll ci beneen tem dëgg la de wallaay ñu loolu la ñuy def wallaay moom koy kiiwaan la daa mel ni fi ne tem bi ñëw nag mooy temu troisième mandat oustaz waaw daa mel ne tem la bu xumb boo xam ne actualité la ndax jamono jee am na ku ci waxoon koo xamante ne dañ koo dàq ñenn ñi naan dàq ga lam ca wax a tax ñenn ñi naan loola taxut xëy na daa tombe Moustapha Jaxate bi mu génnee moom itam ci ay bis gi wax ci daa mel ne jot nañ ay xibaar yu tegtale moom it tàqalikoo nañoo ak moom <laughs> euh, waaw kon daal loolu fi mu ne mooy laal daanu wala laal dàq gi léegi su boobaa nag léegi hmm. loolu lay mu jàgg ne jëmm jëmbaar ci penc mi hmm. nekk nag laa laalaake hmm. kenn du ci wax wala kenn du ko laal wala <laughs> su ko defee ki ñuy dàq est-ce que li tax ñu dàq ko. mooy hmm. lii jërtoon a wax. Hmm. est-ce que li tax ñu dàq ko mooy lu tax nga di ko wax. Hmm. ñaar yëpp a ci am. donc loolu moo ñun ci la ñu nekk rek coow ñool ñool ba fi nekk nii ñi ngi tàmbalee ñeme pour ne day am nag. coow lee koy waral. muy mbaaw mbay ga mi rek. tey euh, noo jàngate loolu oustaz maanaam fi mu nekk nii euh, ni affaire bi dimension bi nga xam ne moom la jël muy actualité troisième mandat yi ba nga xamante ne ndax dafa war a leer nañ ñi wala fi mu ne leer na mais nit ñee nanguwut mu leer ban kumpaa ci nekk ba nit ñi bëgg koo xam wala lu tax ku ci wax rek am ay jafe-jafe. gis nga Afrique gii. Hmm. Afrique. Hmm. mas naa dégg waykat da bu dul ni lu xaw comme ci doon. Hmm, nit ku ñuul yaa bëgg nguur. Hmm. ma ne ko ni ko waxee xamoo ko noonu sax. Hmm. ndeysaan. Hmm. gis nga ci Afrique. waaw waratuñ woon xalaat. ko toog ba naan damay wut troisième mandat. waaw loolu moom dañ ko war ak fuñ la mën di fale nag. kon wax ne ñaari mandat doy na sëkk. wala boog ñu cumuler leen sax far. waaw leen rek ñaari ñaata ñaata oh, ñaata at la. waaw bu dee benn bu ne juróomi at la di fukki at lay doon. waaw léegi. ku falooti def fukki at. mu nekk benn mandat. mu nekk benn mandat. parce que nit ñi suñ bàkkee toog benn mandat. Mhm. di di di propagande. waaw deuxième mandat. waaw mën naa yàq boo ci noppee naa jëm troisième liggéey dëgg la. te te xam nga ne. Mhm. Euh, luwaay tubaab. Mhm. luwaay lu la ci lu leen tubaab mun na ko cee def. dëgg la de ah ndax fi mu ne ñu ngi ci bàyyi ay ay ruq-ruqaan boo koy xool ci constitution bi noo xamante ne yéeme na lool. parce que luwaay tubaab day ñëw ne la. kii li muy wut nii du troisième mandat. Mhm. du troisième deuxième. la parce que ba muy wax bee mandat bee mi ngi woon en cours. comme beneen mandat bi la nangam la. luwaay tubaab noonu la. ci luwaay tubaab. mën na koo tëj ba mu ne taraj moom luwaay tubaab bu soo dana ko tijj. Mhm. Mhm. te nag Afrique moom président yi moom jàpp nañ ne léegi. falu folleeku wala falu démissionné. wala falu keneen jël jàpp nañu fii ci Afrique kenn waru ko fay def. loolu nag àdduna ji tukki la mhm. penc bi nag ñooy def noonu ñol ñol ñol ñol ñol ñol ñol ñol ñol bu bu ñu noppee ci bu ñu noppee ci troisième bii del xool rek mhm. leen na ni këtt ne jonn ñu nekkaat ci lool dëgg la de doon bàyyi moom est-ce que wax nga lu am solo de oustaz dafa mel ne boo xoolee àdduna mi ngi dox di jëm ci xeeti mandat yooyu di dañ wala mandat yu bari yooyu ci àdduna si ci yenn réew yu bari waaye ci Afrique moom ndax boo xoolee tey réew yi ñu digalool lu mel ne Guinée yaa ngi ko fay dégg lu mel ne Mali yaa ngi ko fay dégg lu mel ne daal ñun am nañ am nañ problème de am bu rëy. <laughs> am nañ problème tey nit ña foofa. daf hmm. leen di jaral génn ci mbedd bi. Hmm. ñu rey Mor Xuj. waaw rey Bàcc. Hmm. rey Paate. rey Galaay. onze personnes douze. luy xew door a xew. dëgg la de mu ñuy teg ci suuf door a teg ci suuf. Mhm. bu ñuy jàll door a jàll. ndax fi mu ne jàppoo ne kon njiitu réew mi daa waroon a génn oustaz wax ci waxaat ndax sax donte waxoon na ci. waaye daa mel ne wax jooja nit ñi dañ koo doyloo wut wala dañoo jàpp ne léeg gaa yi dañuy wax ba noppi seeni wax teggee ko daa war a génnaat génn bu wér. wax ci close débat boobu noppal boppam noppali. am na noonu fi ne si mbàkk. Hmm. jëf a ci hmm. <laughs> jëf. mooy lan. dégg naa Ndeye Marème lim ci. lim ci doon teg ba kii waaw di ko fàttali. di ko fàttali baat loolu doy nay wax. sëkk waaw dëgg la de. léegi kay. Hmm. jëfa ci des. Hmm? mooy yëf yi jax na. Hmm. jëfa ci des. wax ji moom wax nañ koo nappi. léegi nag soo soo soo jëfee lu wóoteeg wax jooju nag. loolu mën na jur ñol ñol dëgg la yow waaye lim ci waxoon daal. man fi ne pour ku mel man nii. Hmm. man loolu laa gëm ba te di nelaw. mooy ne du defaat beneen man. man loolu laa gëm ba te di nelaw. Hmm. kon man na maa wax ne daal Oustaz Alioune Sall moom dafa jàpp ne président Macky Sall bii mooy deuxième et dernier mandat. wax ji ma wax nii. Hmm. suuf laa jàpp fi te di nelaw. Ah, comme loolu wax daal yow loolu nga jàpp. yàlla xam na ko. Oustaz boo jékki-jékki woon moo euh, am. mu jékki-jékki ne beekat bañ koy wax juróom-ñaari woon bii nangam. loolu laa lay la ci dul bett. ah <laughs> Afrique yow daal lii nga jàpp waaye lee mën na laa bañ a bett. ah <laughs> su suñu góor gën waxoon na ko fi. Eh, waaw. doy na góor gi waxoon na ko fi de. waaw maa waxoon waxee. te te gis nga maître Wade bu jeexaloon suñ Mbàkke. Mhm. ci deuxième mandat ma. Mhm. non c'est extraordinaire. wallaay ndeysaan wallaay wallaay kon mu gën fee neex. laa ilaaha illallaah mhm. bu jeexaloon ci deuxième mandat ma. mu defoon menn mandat ne dëkk réew màngo ngoog. allahu akbar dëgg la dëgg la waaye fi ne yooyu yooyu dañ la koy dañ la ko ci wax di la ko joxoñ di la ko woye falal nangam ki nangam mm-hmm. ba nga na ci sëbax dëgg la de mu yàq sa woy mm-hmm. yàq sa woy nag ba faw mm-hmm. te woyu moo gën lépp nag waaw ndeysaan woy wi mm. mbàkki Nelson Mandela ci Afrique gii mm. woye ma dana jeex dana far déedéet am na woy de moom wudul far ba mukk ku fekkee jamono ku fekkewut yëpp danañ la ko wax ba nga naw ko ci njàmbaare di di xeex ci dara ñu tëj la ci ay at nga génn di dox ba jot ca loola. daal ne gaa yi jël leen man lii rek laa bëggoon. ndeysaan cay nguur taxutoon ma di ko wut. ndeysaan. Mbàkke loolu moo daloon Yuusuf. Mm-hmm. ba naan rabbi xad aatani minal mulki. Mm. wa allamtani min taawil ahadis wallaahi ndeysaan faatiri samaawaati wal ard jeex na nee na ko ñaar yi nga ma defal doy na mu sukk mm. bëgguma ñetti mandat ndeysaan ñaari mandat la la soxla woon mhm. aatayte ah, nii minal mulk muy benn mhm. mandat mhm. waa allamte ni mi tafil ahadis muy ñaari mandat tawaffani musliman nag moo ci des moo ci topp wallaay ndeysaan mu ne sunu borom bugguma sama way bu yàqu tawaffani musliman walhiqni bi saalihiina loolaa ma gënal <laughs> kon bu fi yamee nii baax na waaw wax ju rëy bind bu rëy la oustaz waaw Youssouf Youssouf dundam gi leneen la. te it xoolal moom fi mu jaar fépp ba jot ci nguur ni mu métti. voilà waaw mu jot ci ay mbokkam ñëpp euh, daal di koy tumlu mu jóge ca dëkk ba ñibbisi. ay fereeram ñëw ñu war a tàmbalee dund neex-neex mu ne yàlla na fi yem. rek seet na fi yem. waaw bind la de. moo tax wayoo du fay. déedéet du fay ba mukk kere ba frère yi ñëwee hmm. tàmbalee sëgg ndeysaan di am kersa lañu ko hmm. defoon hmm. mu ne sunu mu ne min baadi ma nasa seytaanu bay nii waaw wa bay nii xóoti rek ñoom ñoom ñu sigi wallaay ndeysaan wallaay mooy leen li sama diggante yéen seytaane rek la man rek ngeen bëgg maay seen petit frère te noo bokk bàyyi ñëpp sigi macha allah <laughs> <laughs> macha allah am na solo oustaz jërëjëf loolu di taxawaay la bu am solo bu xóot boo xam ne du ma ci génn oustaz te waxuma ak ñi ñi dàqe ak kii dàqe waaw ak fal lan moo ko war a lal ak jeexal falub nit lan moo ko war a lal ndax nit ki moom boo xasee ba fal ba mu tënku day wax rek ci sa bëgg-bëgg wala dafa am ci loo xam ne bu ko waxee rek tàqalikoo jot na wala tàqalikoo jotul waaw pénc bi hmm. euh, looy wax naa la ko looy tubaab la hmm. suñu bàkke hmm. buñ la xasee na dañ laa fal nàngam léegi bi ñu la felee nangam loola yaa ko doon. waaye fi nekk nii ñun suñuy réew yi ku wax. Hmm. boo jeexalee tuddoo président. Hmm. def nga mu <laughs> dëgg la de. waaw bon comme président. waaw ni ko président waxee faaw nga président waxee ñu jënd keccax. <laughs> moo tax keccax bi doon doy sëkk incha allah <laughs> monsieur le président nee na ñu jëndaale mango boole ci. même bu ko waxut. donc même bu ko waxut. maam lépp looy wax da koy waxal da nga koy dugal ci biir. Ah, suñu béy si soo danoon gàmm. Hmm. waa ne ko président nuyu na la xam nga góor na xam hmm. ci gaañoo ñu mu ne ko kañ ko gëj a <laughs> man waaw man de gis nañ ci bëccëg sànq. léegi daf laa téléphoné am. Hmm. dafay yónnee waaw yóbbante bi nan la demee nuyoo bi. <laughs> wala yaa bëgg lu ko neex. donc yooyu moo nuy dal. ah, ah donc buñ la falee. ba di séentu ci yow loolu. dañu jàpp ne buñ ko si gisul def nga musiba. su ko defee bu ñu ko ci bu ñu ko ci gisu dañu daan daan di wane monsieur le président. gis nga kii def laa contre mi ngi dem ak boppam. Mhm. ku dem sa fauteuil bii la soxla. dëgg la na ñool. Mhm. donc ki ñu fal dafa am lu ñu ko falee. Mhm. day def na day def compte rendu nag. léegi loolu ñu ko fale nag moom moo ko moom ay sañ-sañam la. ay prérogative am la. moo xam nag léegi lu mu cee def ak lu mu cee bàyyi. macha allah gis nga ko ayee. ba ñu jox la sa 5000. dépense. ba dee marché. Hmm. yaay seet waxam suppa kañ ngay ngay togg. Hmm. wala maafe mbaa duma daa. dëgg la. dëgg la sukkuraan dëgg la macha allah jërëjëf oustaz loolu am na solo ñu jaajëfal la ci bu baax a baax Abdou Elenkin Diatta mi nga xam ne moo euh, jiite woon robel yi moom de ci ay bis gi moom it oustaz dañ ko fekk ci ab jotaay bu ñu amoon ndajem aada ak cosaan euh, daal di soqi ay bal ca kaw mbooloo ma ba mu ñàkk ci bakkanam loolu nag indi ay coow yu bare bari ak i njàngat ci pénc mi am ñu jàpp ne daal Casamance gëjoon nañu faa dégg yu mel noonu te déggati nañ ko te moom ko amoon kàddu la ci yëf yi hmm. loolu man jàngat nga ciy def. waaw xam nga sunu réew yi rek mooy am yooyu. Hmm. ay rébellion rébel nàngam hmm. nangam suñu réew ñoo koy am. mais réew tubaab ñaare du ko am. ndeysaan. Euh, léegi nag metti na lool. ñu jëkki jékki ne am nañu gàddu ngànnaay. dugg ci barab sàngam bëccëg dara kàmbaree foofu nit. loolu moom metti na. te itam bu fekkee dañuy wut jàmm. ñu dox moom yàgg loolu am mhm. ñëpp dañuy jaakaar ne kon ah mbaa kon li ñu doon wut du xajam mhm. su fekkee loolu leen wut du xajam nag mhm. jàmm jo xajam baaxul waaw ko defee yooyu moytu ba mu bañ am mooy li gën waxtaan mooy defarum penc waaye dool defarum penc firaaw na kër ba mu jaaxle daal daal di jaay doole waaye fu mujj gis nga ko rek waaw kon jaay doole jooju baaxu ci ak itam di ko feeñal ci ay ngànnaay yu ni demee waaw yàlla na fi yem nag. dëgg la waaw te jàmm ja ñu wut foofu yàlla na ko yàlla gën a soqali. amiin ba jàmm ja am. amiin yaa waaw moom la ñëpp bëgg. amiin waaw amiin yaa rabbal aalamiin jërëjëf oustaz jërëjëf ci njàngat mu am solo moom nga ci def euh, burdu bi de door na. Eh, ca Tiwaawoon gannaaw bi nga xamante ne weeru yonent bi alayhi salaatu wasalaam feeñ na mhm. eh, ñu nekk ca di ko amal mhm. eh, jombut sax demoon nga ci ubbite la mhm. waaye man njàngan nga ci def jërëjëf Modou Balay habibika xayril xalqi kulli waaw buur du ñëwal ci ne sëñ Mbàkke weeru rabiil awal terootina ndeysaan weeru sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. wa xayru mi ma wa bisalika fal yafrahu wa na mm-hmm. def leen ci li ngeen am lépp mm-hmm. def leen ci li ngeen dajale lépp ndax ku ci am ci ñun doom da nga jëndim xar dëgg la de jënd ceeb ak diwlin ndax bëgg ci sa doom ji dëgg la doom ji nag lu mu jëriñ jëriñ li yonent bi jëriñ nit moo ëpp li doom di jëriñ wallaay wallaay. am déet. wallaay ci lu wér. waaw ci lu ci lu demoon nañu wax nga dëgg ca ba mhm. bés bu njëkk bi. Mhm. Eh, ñu ngi nekkoon zawiya bu Cheikh Al Hadj Malick Sy radiyallaahu anhu. ndeysaan ci ci alxalifa waaw. Mhm. nuyu na la. ndeysaan ci ngi koy siyaare bu baax a baax. si nuyu naa baax waay. moom mun kay munu fee wees. dégg naa oustaz mu ne euh, suñu gars yi. Euh, suñu mbokki presse bi. waaw <laughs> jërë ngeen jëf nag na ngeen jël yóbbu waaye bu leen monté daal. waaw <laughs> ah, ndax di monté ka dagg ak yooyu mën naa kii ay wax. waaw <laughs> message yu am solo waay. mu ne nag bu ngeen demee it bu leen defee dañ leen a attaqué. Mhm. naan xalifa ba attaqué na attaqué ma kenn. Mhm. dañuy waxtaanoo ak yéen. Mhm. waaye wax na dëgg. dëgg la donc burdi bi tàmbali na. Euh, jombul alxames mu jeex. ñu def ko tëjtal burdu. su ko defee mu yàlla dimbalee mu ñu delloo dem ca xaw yi suñu kër Si bu ñu demee ci samedi ja incha allah dem ca sand course mhm. noonu lañ ko bëgg a doxale macha allah mhm. mhm. eh, burdu doon lu am solo ci suñu réew mi yaa ngi dégg sax burdu yi nga xam ne décentralisé lañ koy def jàkka ju ne yaa ngi burdu région bu ne yaa ngi burdu koñ bu ne yaa ngi burdu lu tax dëgg la bëgg populaire yi waaw waaw bëgg populaire ah. dañoo bëgg réew mi mm-hmm. xam annabil Moustapha ndeysaan ndax mu ni su koo topp te xamoo ko mm-hmm. te it stratégie boobu mag ñi defoon bu ñu ko defutoon mën nañ ko ñàkk xam dëgg la parce que boobu buuxante ak dóorante moo am ci penc bi mm-hmm. tubaab bi bëgg ñuy pàccanga ak ngoroso ko def yëf <laughs> waaw mag ñi bëgg ñoo génn ca loola dugal ñu ci liñ nekk ñoom def ci jéego bu rëy dëgg la ku ku ku góorgóorlu rek mbokk ci loolu. ku góorgóorluwul nag ñu bàyyi la fa. waaw dëgg la. Cheikh El jël jël nag téere xam ne imaam Busiri bu dekkiwaatoon. ñëw yaakaar naa dana jox Cheikh El Hadj loxo dana dina ko gàcce ndax barki bii burdu am. ci suñ réew mii de xaw ma leen réew de wallaay wallaay mokk waaye suñ réew mii waaw li ci may burdu lim am mhm. loxo bi ko Cheikh Al Hadj Malick teg ca la bokk te loolu rek dafa doy sëkk am njàng rek suñ bàkk te xilaasu tëxëbam bii mën naa burdu waaw ah, wax yàlla <laughs> wax dëgg yàlla bind na lu mën a burdu te mën na ko it nag jeex na <laughs> waaw waaye fi ne li gars yi naan place bi pour def ko waaw waaw su toogoon di burdu di jàng xilaasu sahaba mhm. ndeysaan xam nga su boobaa du tudd burdu moom kay leneen la waaw leneen la leneen la macha allah macha allah yal nañu ko yàlla fayal yal nañu yàlla fayal ñu leen. amiin lu am solo la. amiin ci gaatal la bokk. Mm-hmm. ci ci ci ci samaaxa la bokk. yaatul dënn. Mm-hmm. ci tolérance la bokk lu lu lañ ci biir. dëgg la macha allah lu nekk ci biir. ñëw nañ ba tàyyi sax ci historique beek ni nga xam ne noonu la amee. Mm-hmm. jot jamonoy Cheikh Sidaaj Malick ba agsi tey. waaye tey itam am na solo lool oustaz. Euh, léeg-léeg euh, jamono jii. climat bi nga xam ne moom la réew mi di am boo jaalee rajo yi wala nga taal télé yi rawatina ngoon gi wala nga xool ci internet bi foo xool dégg ñuy julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam gis ñuy waajal gàmm gis ñu ne ci euh, ci climat bu am solo boobu loolu aussi man jàngat nga ciy def waaw mooy suñ bàkkee hmm. xam ne hmm. boo ci moom benn yoon hmm. yàlla jullee ñaata waaw moom koy fukk fukk fukk xam nga tey yow yow miy dugg ci YouTube xam nga ne waaw waa ji bu dugalee benn élément. day mhm. bëgg ay vie mhm. dëgg la. ah dëgg la. léegi douze mille vues lu muy tekki. moom kay lu baax a baax la. <laughs> <laughs> day am nu mu demee lool. day am nu muy demee. Mhm. léegi nag ñun tam boo ne allahumma salli ala sayyidina muhammadin. léegi am nga dix vie waaw benn boobu nga wax yow mu nekk dix vues. waaw dix. waaw boo waxee dix ñu lay am cent. waaw cent vues ngay am. boo waxee boo waxee cent. am mille vues. <laughs> ah baax na de ah. te vues yooyu. <laughs> boo waxee mille am dix mille vues. waaw bon. <laughs> te vues yooyu. waaw moo ëpp euh, ak kii bii. bokkuñu. macha parce que vues yi boo ko amee. <laughs> peut-être ay euro lañ lay jox. Mhm. wala ay CFA. Mhm. nga jënd ci tàngal ak suukar. Mhm. mu jeex. mais vues yi nga xam ne moom nga am ci salaatu ala nabi. waaw waaw. ah waaw dëgg la de. vues yooyu dafa am ku ci bokk ñu wax allahu subhanahu wa taala. am ku ci bokk ñu wax muhammadu rasulullah. sallallahu alayhi wa sallam. mais sa vie yi ñaar ñu ci bokk rek. Mhm. Mbacke. Mhm. sa vie yooyu ñaar ñu ci bokk rek. ñoom rek leneen la. waaw te yonent ba nee na. Hmm. ku yàlla julli ci yow junni yoon. Mhm. nga mucc fii mucc fële. kon am nga mille vies. waaw. yooyu rek bu jar na ko. Hmm. nga gis ñu toog ci jàkk ji nekk mbooloo. Hmm. daal di ne Mawlaaya. sallim. daa iman. abadan. ala xabibika xayril xalqi kullihimi waaye lii neex na waay munu fee weesu neex na lool oustaz dégg ko fii neex na lool daiman abadan ala xabibika xalqi kullihimi والطف بعبدك في دارين إنا لا صبرا متى تدعوه الأهوال ينهزم waaw waaw macha allah macha allah loolu am na solo oustaz loolu mooy burdu kon loolu lay burdu tàmbali na boobaak léegi def na ñetti fan waaw xëy na samedi ji di ñëw bu dellu moo war a nekk gàmm gi incha allah incha allah tubarkal ñu war a jeexal bi ci bisu bisu alxames su ma alxames waaw incha allah noppalu ajjuma gàmmu samedi noppalu ajjuma gàmmu samedi incha allah waaye tabarkalla moo laaye salli wa sallim Eh, daayiman abadan dafa am hmm. solo. dëgg la nga xam ne ci la ñuy daaji burdi bi. Hmm. defe naa tey nee nga mooy faslub ñetteel bi. waaw tey mooy buntu ñetteel bi tey su ma jëloon ne la sëñ Mbàkke faslub hmm. ñetteel bi tey. lu mu ci wax oustaz. Eh, ñu ngi ko dugal ci. Eh, madxu nabi yi. waaw maanaam tagg yonent bi alayhi salaatu wa salaam. loolu la ci bëgg a indi tey. seet tagg yonent bi. def ne. salamtu sunnata man ahya zalaama. ndeysaan. mu ne man bu séeri day. tooñ naa sunnas ki dundal guddi mm-hmm. ndax dama ne ko sunnit laa mm-hmm. waaw te dàq nelaw mor xujj waaw mm-hmm. gis nga Mbàkke mm. affaire bu doy waar la maanaam bi nga ne man ab jullit laa fu ñu la fekk ngay def yu doye di waaw yaa ngay tooñ lislaam dëgg la ndeysaan boo ñu sunnit laa fu ñu la fekk ngay def yu doye di mm. yaa ngay tooñ sunna boo ne murit laa hmm. fu ñu la fekk ngay def lu doye di hmm. yaa ngay tooñ ak hmm. boo ne tiijaan laa ñu fekk la ngay def yu doye di maa nga di ko wax yaa ngay tooñ ak tiijaan salamtu sunnata man ahya dalaama moom ahya salaama ilaa an ishtakat xadamahu durra min warami koo xam ne kii naafi jaral na ko mu muy muy yeew biir ba foofu la dugg nag mhm. wax yonent bi mooy kan mhm. wa shadda min saxabin mhm. wax ca waraawadahul jibaalu wax ca akkada zoodahu wax wax ca wa kayfa tadoo ila dunia darurata man ndeysaan macha allah naka la kii di bëggee adduna ci àdduna bëgg ko wallaay wallaay seetal loolu waaw ala kulli xaal bunta nga noonu bu am solo ci la mbokk yi di nekk tey bu allah eh, buñ dajee ci Tiwaawoon burdu dañ koy jàng oustaz woy bunt bi ba mu jeex ñu waxtaan wala waaw danañ way burdu ba mu jeex léegi léegi waaw dañ waaye buur mu jox ñu waxtaan waaw bu njëkki nag ca tàmbali ba loolu moo doon am hmm. daaw duñ ko woy rek dem ñibbi waaw dañ koy woy ba noppi joxe ay joxe ay orientation insha allah loolu mooy am hmm. rawatina nag buñ koy tëj ak buñ koy tëj hmm. léegi itam boo dem zawiya buñ buñ defee burdu ba noppi dañ naan anam suñ mbàkk si la ñu ne moo ngi nii waaw ñu ne ko waxtaanal ñu ci nàngam daan lay jox nag bu buntu ba wax. waaw waaw mu mu def ci ay kii. nga ñëw ca taali def ci say taalixaat. macha allah yoo xam ne yaa koy baxsu. dëgg la ñu ne bu subaa. Hmm. Euh, di woy def. très bien Oustaz Alioune Mbaye mooy def. macha allah loolu programme bu am solo la. programme bu am solo la. macha allah waaw. yàlla ko yàgg a fekkee. waaw amiin amiin danañ ci ñëwaat sax ci lu gën a yaatu donte gan ñi ñu war a dalal moo tax. incha allah waaye bala maa tëj foofu defe naa yow itam am na gàmm goo xam ne yaa ngi koy woote ak waa Ali Imran. Hmm. Euh, samedi jii di ñëw lay doon. waaw samedi jii di ñëw lay doon fi ñu ko daan wootee. muy hmm. terrain Castor terrain Castor ci terrain basket bi ca la ca la yemagum. incha allah yàgg na dem ba toll nii Ashura. ci guddi gi lay nekk. ci guddi gi la sëñ Mbàkke ci lay tàmbali. Mhm. ba ba matin. Mhm. la tàmbali une jàpp bët set. Mhm. wala jàpp 5 heures. Euh, ci la ñuy tàmbali ñun tam. d'accord far fas faa yéene waxtaane. yonent beeg ni daan jëflanteeg saxaaba ya. ndeysaan ndaw lu rafet. waaw. sunu gàmm nag. Mhm. Euh, ñaara du am daaj. ah amoo euh, woykat yi duñ ñëw. déedéet mais maa la doon bëgg wax naa ndax dut kenn mooy ñëw wala <laughs> euh, Cheikh Diop Mbaye ñëw wala kan. mooy ñëw waaw dañoo bëgg ñëpp gis ci seen bopp. Mhm. te bu ñu bu ñu ko defee noonu. aadam réew mi. dañu mhm. daal di tàmbilee xajamal sunu gàmm. moo tax nu bëgg rek bu ñëwee. jigéen ñu toogee côté gauche. góor ñu toogee côté droite. ndeysaan du dëgg. ñu toog waxtaan ak ñoom ci. ku baax kooku di annabiyul Mustafa mm-hmm. Mm-hmm. nun ñëpp ñu di ko royo ko xeeñtu mm-hmm. digganteem ak ñam daan àndal nu mu daan demee waaw loolu lañ bëgg a waxtaane dëgg la vingt trois heures daal lay tàmbali insha allah ba cinq heures du matin ko defee ñu ñu ñu tas ko dañ ko daan tas café yeeg meew yeeg ñoom siin wi nag moom ci biir rek soroxo soroxo yi nag ndawk ndaay baal ko defee ñi nga xam ne ñoo ci ki daal ku fa vingt trois heures fekk ci terrain Castor waaw ñun duñ def 23h woote 23h tàmbali 23 h heure bi ñu wax moom la ñuy tàmbali ñun heure bi ñu wax moom la ñuy tàmbali bu fa juróomi nit nekk bu fukk nekk mm-hmm. Mm-hmm. ñun xam nañ ci loolu kon nag ñu ci woo Sénégal yëpp nag mm-hmm. waaw Sénégal yëpp. Mhm. ñu ngi leen di woo ci sunu gàmm gi. macha allah noonu baax na woote baa ngi noonu kon ci terrain Castor gàmmu Ali Imran euh, samedi ji incha allah. incha allah bu 23h jotee. 23h kon ci kanam tuuti oustaz ñu dalal gan ñi buñ ca noppee door a jotaay bi. xanaa wax mbokk itam ne leen bu subaa incha allah ci sunu jotaay bi. Mhm. Euh, al al waaw 10h lay tàmbali. 10h suba waaw. Mhm. ndax dafa am. benn feetu catholique. waaw boobu ñoom ñoo ah, bëgg a jël. neuf heures ndax férié la moom. ñoom ñoo jël neuf heures. macha allah nag ñu jël dix heures midi ba midi incha midi. ñu na ko ñëpp dégg noonu. baax na xaj bàkke amuloo morom kon ñu bàyyi la nga jëlee gan ñi. wal anbiya wa jami'i rusli ma dhukira دائما حبيبك خير الخلق كلهم وصل ربي على الهادي وشيعته وصابه من لطي الدين 23 heures jot na ba teg fukki simili ak juróom xaaji Oustaz Mbacke jëli na gan ñi xaaji Mbacke bu kon nag bisimilah. jërëjëf jërëjëf Oustaz ñu jaajëfal la baax jaajëfal auditeurs yi ñuy déglu yëpp ñëw na ci ñaareelu xaaju jotaay bi te mooy fas yéene dalal suñ gan ñi eh, ni ñu ko waxee woon léegi bi ñuy ubbi di Serigne Issa Diop Oustaz Alxaaji Omar mbay bàyyi ko ci daayira Moustarchidina wal Moustarchidaati mm-hmm. ñu fas yéene seq ak ñoom aw waxtaan Oustaz. fas yéene seq ñoom aw waxtaan kon xanaa ñu def mooy bàyyi leen ñu nuyoog mbokk yi. bisimilah sëñ eh, sëñ Issa. ñu bàyyi nga nuyonteeg mbokk yi bisimilah. bismillahi arrahmani arrahim wa sallallahu wa sallama wa barak ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa ashaabihi ajmain mbokk yi déglu Sud suñu rajo ñi ngi leen di nuyu bu baax ci guddi gu tedd gi di sangu guddi ci semaine bi yépp ñu koy wax guddi aljuma rawatina ci weeru tedd wi di nuyu mbokk yi nga xam ne ñoo ñu dalal tey oustaz Alioune sàll wax dëgg yàlla di ko am taxawaay ci daanu daawo bi hmm. ñu ngi koy nuyu bu baax di la nuyu itam sëriñ ñu ngi lay fay jërëjëf jërëjëf jërëjëf sëñ Issa ñu jaajëfal la ci nuyoo yu am solo yooyu hmm. oustaz Alxaaji Omar asalaamaaleykum ñu jege micro hmm. Mbàkke ñu ngi lay euh, nuyu di nuyu oustaz Alioune Sall di ñaan yàlla yàlla na yàlla yàggal taxawaay yi. amiin yaa rabbal suñu mbokk di oustaz Issa Diop. waaye mm-hmm. surtout tamit ñi nga xam ne yëpp ñu ñuy topp fii ci seen rajo Sud FM. Mm-hmm. donc ci seen ay auditeurs. ñu mm-hmm. leen di nuyu di leen ndokkeel ci weer bi nga xam ne moom la ñu dugg. muy weer bu barkeel. di rabi al awal ñu mm-hmm. weeru gàmm mm-hmm. waaye tamit di leen ndokkeel ci guddi ajjuma yi nga xam ne bokk na ci guddi yi nga xam ne mooy gën a sell ci guddi yi mm-hmm. donc salaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam jërëjëf Ousseynou Issa jërëjëf Alaaji Omar Oustaz kon ñu bàyyi la rek ñu daal di dugg ak ñoom ci waxtaan ah kay dugg ci waxtaan wi ndax euh, ni nga ko waxee léegi daal mustarshidun wal mustarshidaat yi koo ci xam ne xam nga ak euh, dégg lu jëm ci wàllu gàmm gis nga seen taxawaay. Mhm. Euh, ci wàllu gàmmu. waaye dama ñëw sa oustaz Issa. Mhm. laaj ko rek lan mooy seen temu gàmmu ren. Mhm. Seydina Issa. waaw xam naa oustaz Alioune sàll ñu ngi lay sant bu baax a baax ci question bi. di ko rafetlu macha allah. xam nga ci cadre al mustarshidin wal mustarshidat. dañu def benn révolution bu am solo ci wàllu gàmm. ndax suñu maam Sayid Cheikh Ahmed Tijani ñëpp a ngi fàttaliku ni eh, bi muy yëkkatiwaat gàmm ci cent de course ci atum 1998 am na ay tatawuraat yu bari yu mu ci indi mooy ñu jëlee gàmmu ci aspect bu dellu ci daje rek way jàng mu jeex waaye fexe ba am benn message bu universel boo xam ne àdduna bi yëpp dinañ ci mën a gis seen bopp Eh, daaw ko faral di wutal tam nag ñu ni at sàngam ci tam tel ci la ñuy tuddee gàmm gi. mais mm-hmm. daan ñëw eh, ci mustawa bu kawe. Mm-hmm. xam ni bu ñëwee communité yëpp lay waxal. Mm-hmm. du wax en tant pour confrérie yi. wala en tant que kii mais day wax ci cadre umma. moo tax ci sens boobu la ñu continuer ba tey ci suñu njiital guide. di suñu responsable moral ak Cheikh Seydi Mouhamadil Moustapha. xëy na ci lancé boobu la ñu continuer mais nekkul lu ñu wutal mawdu xaasa boo xam ni ci la ñuy ci la ñuy waxtaan. Mm-hmm. xëy na sujet bi moom ci guddi gi moom bu ñëwee ci façon bi mu koy defee. Mm-hmm. macha allah toujours noonu la koy continuer incha allah. Mm-hmm. naa loolu lañ doon kii ci question boobu. am na solo. macha allah am na solo sëñ Issa jërëjëf jërëjëf oustaz euh, ci tontu sëñ Issa bi buñ ko dégloo bu baax a baax oustaz kon du ne tem sàngam lañ naan tem bii la ñuy waxtaanee. donte dana amub tem. waaye day loo xamee kon day génn mbirum ak kepp mm-hmm. génn mbirum gàmm niñ ko xamee woon waaye lu yaatu lay doon angal boo xam ne jullit yëpp dañ ciy gis seen bopp loolu am na solo lool sëñ Mbacke tabarakallahu mm-hmm. loolu am na solo <laughs> ah, ñu jox la kàddu gi nga indi sa laaj jërëjëf ñu jaajëfal bu baax a baax sëñ Issa xam naa sëñ eh, Alhaaji Omar mbay eh, ginnaaw bi sëñ Issa waxee loolu ñaare gàmmu xel yu baree bari day dem sand course mm-hmm. ndax eh, discours ba nga xam ne moo fay bàyyi ko ñu fa daan fekk sëriñ Cheikh Ahmad Tidiane si Al Maktoum tey sëriñ Moustapha di fa teew yu baree bari ñu di ko fa xaar loolu ban taxawaay la ci daayira bi euh, maanaam tollu ren ci yan jéego la ci la ci la ci toll ci waajtaay wi barakallahu fiik ci hmm. question boobu xam naa rek euh, mu mel ne comme ni koy saa waxee hmm. ndax yàlla dogal na gàmm ku ko wax dangay ngay wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam hmm. moo tax boo koy euh, fàttaliku da nga koy ba defee ko ci dimension am mm-hmm. te moom yonent bi parce que moom yàlla mu ne wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin mm-hmm. donc mu amoon dimension boo xam ne dimension bu universelle la mm-hmm. moo dimension universelle boobu moo waral maam Cheikh Ahmed Tijani si radiallahu anhu ko daan taxawee ak ñi nga xam ne ñoo ko jiitu woon ci dimension universelle boobu lañ ko daan taxawee te mooy yóbbu ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa darajam mooy xaqa qadrihi mu mel na donc ñu dem di dem di dem ba Serigne Moustapha yàlla dogal muy jëmmal li nga xam ne moom la maam Cheikh Ahmed Tidiane si doon jëmmal mhm. te wax na ne kañ ngeen di gàmmu may mhm. di déglu mhm. comme seen maam ni ma ko daan defee wax ne kañ ngeen di gàmmu ma toog di déglu yàlla dogal maam Cheikh Ahmed Tidiane si ba mu wujjee suñu borom subhanahu wa taala Serigne Moustapha di ko amalee noonu waaye niveau bi nga xam ne moom lañ ko gën a yóbbu presque même niveau bi nga xam ne rek moom la doon amee. Hmm. waaye dañuy gën a dolli li daan am te mooy discipline. Hmm. Hmm. sur le plan tamit euh, organisationnel mu dellu sur le plan matériel. ñu fexe tamit ba yóbbu ko la dimension du prophète sallallahu alayhi wa sallam. alayhi salaatu wa salaam parce que dafa am euh, benn euh, borom xam-xam. bu ñuy wax Lamartine. dafa waxoon si la petitesse si la grandeur du dessein la petitesse des moyens. et l'immensité du résultat sont les trois génies de l'homme qui osera humainement comparer, comparer mm. le prophète à, donc qui osera euh, humainement comparer un grand homme de l'histoire à hmm. Mahomet hmm. nee na bu nekkee ne koo xam ne bëgg-bëggam dafa rëy waaye moyens yu mu am moyens yu néew la hmm. waaye malgré moyens yu néew yu mu am réaliser na résultat bu rëy nee ku def loolu kan moo mën a sañ taxaw dëpp tëkkale ko ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. alayhi salaatu wa salaam. Serigne Moustapha jàngal ñu ne bu njëkk petitesse des moyens mënoon nañ ko nangu. Hmm. mu ne waaye léegi petitesse des moyens kenn mënatu ko nangu. immensité de résultat ko bëgg. Hmm. il faut nga am grandeur. Hmm. des moyens. dëgg la comme ñu gis ne comme tey. képp koo xam na tey yaa ngi màggal yonent bi sallallahu alayhi war nga ko yóbbu ci dimension te mooy ci condition yi ñu ko war a organiser képp ku ñëw bu teewee xam ne tey di dëgg-dëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu ko defal mérité na ko donc ci façon boobu la moo tax ku ñëw champ de course condition yi ngay nekk dina nekk condition yu am solo foo toog di nga dégg sur le plan matériel organisationnel dëgg la mais tamit foo toog tamit di nga fa am discipline ak mm-hmm. dal mm-hmm. bi nga xam ne di nga xam ne yaa ngi ci ëttu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax loolu la alquran di xaar ci jullit ñi mm-hmm. boo demee fële ci madinatul munawwar tiim xabru yonente bi sallallahu alayhi wa sallam da ngay gis ne dañ ci bind yaa ayyuha alladina amanu mm-hmm. laa faw aswaatakum fawqa sawti nabi mm-hmm. mm-hmm. donc loolu mooy dellu ci dimension bi nga xam ne moom la am ñu fexe tamit ba boo ñëwee foofu champ de course dimension boobu moom nga fay yëg te mooy kaddu bu jibee rek kaddu kaddu yiw la war a doon waaye tamit li war a accompagner mag euh, gàmm bi te mooy màggal juddu yonente bi sallallahu alayhi wa yëpp teew te mooy discipline te discipline pour mu am ndax il faut organisation une bonne organisation am. Mm-hmm. bonne boobu mooy waral ci daayira bi ni ñuy organiser xam naa rek ngeen baal ma ci guddee. waaw am solo li nga gis ne am na ci ñoo xam ne ñi nga xam ne ñoom ñooy dugg si muy accueil. Mm-hmm. am na ñu leen di teeru. Mm-hmm. ci organisation tamit ba tey am na ñi nga xam ne nit mën nga ñëw ci bërëb. far nga xaw a am fa malaise. comme di nga soxla ñu la taxawu. boo fa ñëwee di fekk cellule santé. bu fa ñëwee tamit ci bërëb mën nañ ñëw ba ci bërëb gis tamit donc am lenn lu fa am ci loo xam ne lu jaarul yoon la mhm. comme dinañ soxla sécurité mhm. am na cellule sécurité ci mhm. daayira bi donc lépp loo xam ne l'islam dina ko soxla ci wàllu organisation dañ ko fay fekk nañu wax dañ ko fa fekk yóbbu ko ci à la dimension du prophète sallallahu alayhi wa sallam parce que yàlla dogal na nag donc loolu foofu loolu la ñu war a mën a jëriñoo ci moom parce que darajam moo toll noonu comme ku rëy lépp loo koy defal lañ nga ko war defal lu rëy. dëgg la te un grand homme. waaw agit avec grandeur. effectivement <laughs> ah, macha allah. Mm-hmm. am na solo oustaz jërëjëf sëñ euh, sëñ Alxaaji Omar euh, fi mu dugg am na solo. Mm-hmm. xam naa oustaz bala ma laa jox rek sëñ Issa laay ñëw ci wàllu organisation. waaw ndax bu ñu waxee daayira Moustarchidine dafa nekk model ci organisation yi nga xam ne moom la islaam am yëpp mhm. ci wàllu yar boo xam ne dañ ko ciy seetlu mhm. waaye ci wàllu nose am mbir maam ni koy organiser day yéeme lool defe naa ab tànt la waaye ku ñëwoon lii ab tabax la sax doo ko weddi <laughs> ak niñ koy ràbbeek yu deme noonu lan mooy seen secret ci wàllu organisation mhm. waa xam nga bu tuddee diine tudd organisation te xëy na daayiratul mustarshidin nekkul lu dul une continuité de la mission du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te ku xam mission yeneen bi xam ni léppam ci organisation la ko teg waa mhm. dañuy wax ni nizaam dafa bokk ci sunnatul kawn yàlla sax lépp da ko organiser mhm. wa shamsu tajri li mustaqarin laha ma nga ca mhm. fa muy jaar ak weer waag la ca des daayira bi itam ci cadre boobu ci lay ci lay liggéeyee xëy na nag seen secret ci wàllu organisation mën nañu wax ni li li li li ñu ko may mooy li ñoo tuddee wixdatul qiyaada maanaam am benn leader am benn guide ndax nit mënul am fukki guide dëgg la de ndax alquran sax nee na nit ku nekk benn xol laa la jox maa jaala allahu li rajulin min xalbayni xalbayni fii jaw fii loolu itam bokk na ci secret te yàlla may ñu itam benn guide boo xam ni ku am vision la ku xam risaala la ku xam aliyaatu daawa jamono bu nekk li Seexal Hajj Omar waxoon ni ku xamul feek fukki at yan changement moo fi am ak yi fi dul am nee na waruloo digle waruloo tere <laughs> moom nag toujours exigence yi jamono indi mi ngi ciy tenir compte dëgg allah mi ngi jëm di contextualiser aussi itam mhm. Euh, enseignement prophétique yi ak euh, enseignement alquran par rapport ak jamono bi nga xam ne moom la ñuy dund kon ci façon boobu ci la ñuy organiser teg lépp ci ordre ak discipline parce que diine bu ci ordre génnee discipline génn ci daanaka la cay des yépp folklore la te Serigne moo ñu daan faral di jàngal ni lépp lu ngeen gis pëcc xoo dugg ci rek daal leen cay génn euh, moom lañ tuddee fawda ci arab fal maru bil fawda yudillu xayaatuhu naam wa yubaddilul islaaha bil itlaaf nit buy dund ci anarchie dafay sànq dundam du def bonne gestion du temps du xam naka lay fexee pour gérer la mu yor moo tax organisation nekk lu ama am solo sëriñ bi di ci faral di sonn at bu jot nag muy gën a yéegal niveau am ci wàllu organisation di gën a yéegal niveau nit ñi pour ñuy gën a ni ko oustaz Omar Ngara waxe sànq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 akrim bi ahmada fi nizaami lmawlidi akrim bi mawlidi ahmadin min mawlidi macha allah ca la répondre sax ñiy wax naan gàmm bidaa la mu ni mu ni tontu leen xul qul li sauli fa bidaatun mardiyatun waaye azim biha min bidaatin lam tujhadi macha allah mais ci biir xam naa ci laay ci laay tënke pour delloo la kàddu gi ci la joxee lan mooy justification gàmm lan moo waral tey ñu war a gàmm mm-hmm. mu ni kasurat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 macha allah am na solo lool oustaz euh, euh, sëñ Aïssa ci euh, développement bu am solo boobu mu indi oustaz. tabaarakallaa kon mbokk yi nga xam sel montor 23h ma jot ba teg 30 simili fii ci Jossi FM seen rajo. ñu nekk ci wàllu gàmm dalal suñu mbokk Cheikh Omar ci daayira Moustarchidina wala Moustarchidaty ak Sidna Issa ñu war a wax ñuy waxtaan lu jëm ci préparation gàmm geek mbirum gàmmook yu ne demee mhm. kon dañu dellusiwaat ci suñu mbokk si Sidna Omar mhm. euh, fi mu tegoon baaraamam léegi ci wàllu organisation waaw euh, am solo lool mhm. ñu bëgg ko faa tegaat ndax laaj nga ko léegi secret ban secret lañ am ba war a mën a organiser lii euh, léegi budget gàmmoog champ de course ndax xam ngeen fi ne xayma bi ñaata la toll waaw xam naa donc euh, bu dekkal ci wàllu euh, champ de course budget bi. Mhm. donc loolu peut-être waa organisation yi nga xam ne peut-être ñoom ñoo koy doxal. Mhm. parce yàlla dogal na na daayira bi dañoo organiser façon boo xam ne ku nekk. indiwaale woo chiffres yi. non yéen indi ñu chiffre <laughs> ku nekk donc am nga am nga am nga am nga benn wàll buy dox. Mhm. ci wàllu matériel waaye li ci mënti am solo rek lu ci am solo. mooy ñu xam ne yonent bi sallallahu alayhi nuñ ko defar rek tuuti na. gis nga sànq sax euh, tudd nga ci wàllu tem mm-hmm. ci wàllu gàmmu gi. Mm-hmm. donc tey saa am na mu tontee. Mm-hmm. waaye lu jiitu gàmmu gi dayratul mustarshidin day def bu jant bi bu weer bi. fe teroo rek. ñu tàmbali ay burdu. mais burdu yi dañ koy wutal ay thèmes. dañ ko delloo lépp ci sa Muhammad naa alayhi wa sallam. ndax loolu dafay laaj sa question bi rek. waaw lay ñëw. Mhm. naa ci ñëw. mooy ñu wutal ko thème central tuddee ko insaniyatu muhammadin rasul sallallahu alayhi wa sallam. Mhm. insaniyatu muhammad ar rasul sallallahu alayhi wa sallam. Mhm. mooy thème central bi. mu am juróom-ñeenti thèmes yoo xam ne dinañ ko wàccee guddi gu nekk. bu ñu defee burdu ba noppi wàccee thème ci yonent bi sallallahu alayhi wa def ko au niveau national et au niveau international. gox boo dem moo xam ci niveau zone la. moo xam ci niveau localité la. thème bi dafay wàcc. Hmm. premier jour bi ñu ngi wàcc waxtaan ci sayyiduna Muhammad saaxibu risala al xaalida. Hmm. yonent bi salaa salaam nga xam ne yàllaa ko yóndi mu nekk koo xam ne yàlla ko jox message. Hmm. message boo xam ne la du jeex mukk. du xewi éternel la du xewi. deuxième jour bi sayyiduna Muhammad al aabid az zahid. yonent bi salaa salaam jaamukatu yàlla boo xam ne amul kenn ku mu tollool ñu war ko ci roy mm-hmm. mm-hmm. nekk ku dëddu àdduna mm-hmm. ñetteelu thème bi sayyiduna muhammad as-sadiqul amin sallallahu te loolu yaakaar naa soxla nañ ko jamono bii koo xam ne ku dëggu la waaye ku wóor la yaakaar naa politiciens yi soxla nañ ko waaw ñëpp soxla nañ ko ñetteelu thème bi wala ñeenteel bi nekk ci sayyiduna muhammad al qaid al hakim yonente bi nekk le guide mais guide boo xam ne ku xereñ la am sagesse beneen bi nekk sayyiduna Muhammad al murabbi wal muallimu moom yonent bi saa sallam nekk koo xam ne yarkat bu rëy waaye nekk jàngalekat bu expérimenté hmm. beneen bi dellu ci sayyiduna Muhammad rabbil usra al misaali Mm-hmm. moom ñu yonent bi saa nekk rabbul usra al misaali mm-hmm. nekk donc chef de famille exemplaire mm-hmm. lay donc bu ñu fa jógee ñu ñëw ci juróom-ñaareel thème bi nekk ci sayyiduna Muhammad al batal al aadil nekk njàmbaar waaye njàmbaar boo xam ne daf ko boole ak maanute ndax boo nekkee jàmbaar te maanu woo mu des juróom-ñetteel bi nekk sayyiduna Muhammad arrahmadul muhtaat mhm. nekk yërmande boo xam ne yàlla moo ko jox comme ni ko waxee wax ne ana ana rahmadul muhdaat mhm. yàlla mooy ma leen saax ma nekk donc yërmande wa ma arsalnaaka illaa rahmatan lil alamin dëgg la juróom bi na ñu ñëw ci a cheikhul xaaj malik ibnu ousman mhm. miqbaasun fi xubbi bani adnaan ñu ñëw nag ci ki nga xam ne moo ñu xamal yonente bi salaa sallam fii ci Sénégal di El Hadj Malick si radiyallaahu taala anhu moom mi nga xam ne waxuma am école waaye université la yore boo xam ne formé na ci ay ingénieur ci bépp domaine donc mu mel ne ko yooyu la jël tas ko di ko waxtaanee di waajal nit ñi seen seen wàllu ruux seen intimité ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam gàmmu jot mhm. comme ñu gis ne comme budget boobu waxuma sax budget champ course mhm. waaye ci niveau zone yi mhm. ak niveau localité yi kenn ku nekk sànq rek la may euh, Aïssa di moo wax seen gox bële ñaata million ci ñu nga xam ne moom la ñu waajal ci wàllu matériel. Mm-hmm. pour accompagner. loolu mooy daayira benn bu nekk fa mu nekk la la nga xam ne moom lay dépensé. mu ngi mi ngi mi ngi. moom lay dépensé bés bu set ci. bés bu nekk ci bi weer yi feeñee. ba am ku nekk di nga am loo dépensé. Mm-hmm. du ñu du ñu joxe chiffre exact. Mm-hmm. parce que xamuñu kenn ku nekk. li nga di nga kii waaye xam naa ne kenn ku nekk am nga nooy organiser. ci sa tante. ci donc espace bi nga war a tëral. yëpp mhm. ba dimension bi nekk loo xam lu am solo ngir waajal. kon su ma la déggee thèmes yii nii nga wax yëpp euh, maanaam tey jii ci guddi gi. guddi gi mu am na euh, maanaam maanaam ci gox-goxaan yëpp. yëpp mu ngi wàcc ñenn ñu nekk ña nga toog euh, def seen burdu ba noppi. am fa ku ñëw waxtaane benn thème ci thème yi benn thème mm. d' accord aussi bien fii nii Sénégal que boo génnee même bitim réew. Mm. ci même tem au même moment. Mm. donc loolu yëpp da ngeen ko synchroniser wala ku nekk sa thème. benn tem la waaw. avec même programme bi. Hmm. ndax yàlla dogal na. non li muy wax synchronisation bi mooy ndax da ngeen a am fenn foo xamante ne par exemple ñu ne. Euh, kenn nay def Alaaji Omar moo koy def. waaye yeneen daayira yëpp synchronisé nañu waxtaan woowu ba fañ toog ñoom dañuy toog di ko ànd ak moom. déedéet duñ ko synchronisé. Hmm, hmm. cest diir euh, programme bi benn programme la. waaye ay nit yu bëri ñoo koy wàccee. ci gox yi mu wute gox bu nekk ak nit ku koy ku fay wàccee. waaye. madmum bi. Mhm. te mooy contenu bi. waaw benn la. macha allah ndax donc yanukatu xëddeen. dañuy yëgoo dañuy yëgoo macha allah. Uh-huh. jërëjëf sëñ Mbacke. naa fàttali yow tam ne incha allah euh, dimanche. Euh, waaw quinze heures dix neuf heures. lu mel mm. noonu lañ ñu sant fële ca Mbambilor. Mm-hmm. waaw. xam naa bu dul ñoom it soriwu fa. Mm-hmm. dëgg la war faa waxtaanee kay fa naqtadi bi rasuli. Mm-hmm. sallallahu alayhi wa sallam. est-ce que. ma bi loor ak 15 heures incha allah jëmb. est-ce que donc sa sa tamb yooyu Sidna Omar. Mm-hmm. yu amaam solo la. ndax itam nosa googu. nga xam ne tey lii la ñuy waxtaanee. suba lii ginnaaw suba lii. te topp ko ci yonent bi alayhi salaatu salaam ñu ko am na solo. Mhm. yal na yàlla fayal na xaj Mbàkke. Mhm. jërëjëf oustaz xanaa ñu santaat bu baax a baax ci waxtaan wi ak thèmes nga xam ne moom la indi. Mhm. day tegtale ne xëy na euh, maanaam ndaje mu mag. mi dajale li ñu doon waxtaanee ci fukki fan yëpp mooy wa mooy conférence gàmm gi. waaye bi weer wi tàmbalee ci la waxtaan yi tàmbali woon. nga xamante ne bu ngeen dajee foofa xëy na benn ndaje la boo xam day dajale lépp. man de oustaz damay dellu si waat ci daayira Moustarchidine. waaye tey damay euh, na politique. ak xew-xewu jamono. damaa gis daaw euh, ci contexte bi mu laajoon ba conférence ba di jeex maa ngi dégg sëriñ bi di yóbbante sax Touba. Mm-hmm. di wax ne sama parti day dem élection. Mm-hmm. daayira mu sarsi diin daayira la bu organisé ba mujj mu doon ab parti politique ci boppam wala day daayira bu organisé ba jur ab parti ci biiram. Mm-hmm. macha allah. jërëjëf euh, Hadj Mbacke ci question bi xam naa am na solo trop. Mm. xëy na bu ñu tuddee daayiratul mustarshidin wala mustarshidaat tudd xëy na day wane rek universalité daayira bi ndax politique d'abord ci Sénégal dañuy diaboliser baat bi waaye amul dara lu yàlla bind ci àdduna politique génn ci ba ci anbiya u yeeg mursaluna yëpp dañu amee rôle def politique waaye pas politique politicien hmm. mais politique baat bi sax bu ñu dellusee ci lan lay tekki mooy ban aar ngay utiliser pour mën a gérer la cité mhm. loolu mooy politique euh, Moustarchidine nag bu jëlee engagement ci politique lu normal la parce que dañuy yore rôle régulateur social ci sa ci ci ci biir penc mhm. waaye benn entité la rek walla mhm. benn élément la ci yi nga xam ni dafa bokk ci biir programme daayira bi mais am na mission bu ëpp politique. xëy na nag ñu baal ma sax yenn waa presse bi. léeg ñu jóge ci événement. nga am jaaxle jaaxle parce que la fay génne ci message. li góor giy dégagé. Oustaz Alioune Sall mën na ci témoin lu bare. ndax at yii yëpp macha allah ñi ngi koy ñi ngi koy assister. Mhm. Euh, mais da ngay gis parfois bu gàmmu jeexee. nga gis benn revue de presse rek ñu jël benn benn wax relaté ko. Mhm. Euh, déformé ko. Mhm. mel ni loolu moo ne woon temu gàmmu gi. Mhm. <laughs> or que loolu parenthèse la woon. est que du actualité est-ce parenthèse day am solo ba mel ne da cee bokkut moo tax mu gën a fës. très bien xam nga parenthèse bi dafay am solo. Hmm. xëy na nag aussi kenn ku nekk ca la ngay liggéey itam. Hmm. yaay xool nooy def pour jaay sa information. Hmm. mais li gënoon am solo. mooy li tax a jóg nit ñi te mooy ñu vulgariser enseignement yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale ci façon boo xam ni dañuy yëg ni Muhammad du bachar rek mm-hmm. comme ñun mm-hmm. mais am na lu mu lu mu symboliser te yaakaar naa ko gis façon bi Serigne Moustapha di waxe ci yonent bi mm. man daal xam naa ni bokkul ak sama classe gi nga xam ni ci eh, mu arrixuun yi ni ñuy ni ñuy faral di nettalee mm-hmm. parce que dala koy façonnel ci façon boo xam ni da koy sopp ci façon boo xam ni doo bëgg lu milité ci ci ci li nga xam ne moom la indi. Hmm. yooyu nag yaakaar naa yu am solo la mais it euh, actualité politique bi ci ci ci yi am solo yi la bokk ndax espace la boo xam ne dañ fay waxtaanee sujet yëpp. Hmm. suñu maam Seydou Cheikh dafa bind benn qasida mu won mu wax ni fa inna diina rasulillahi fihi lana xallul mashakil hmm. duniyaaha wa uxraaha nee na mission Seydina Muhammad résoudre na mbooleem problème yi problème mu àdduna bu ñu ko waxee politique ci la dugg social ci la dugg mhm. économique yépp ci la dugg mhm. ak problème mu àllaaxira yi mhm. kon gàmm du waxtaanee julli rek wala waxtaanee yonent bi mais war nañ ci waxtaanee mbooleem mbooleem sujet yi xëy na loolu euh, précision la bu ñu doon def rek wane ni loolu euh, ci la bokk waaye du loolu rek moom moo moom mooy gàmm ngi daal bu fekkee dégg naa sa question. d' <laughs> am na solo dégg nga ko bu baax wax kay oustaz. waaw xam naa jombul si naawar dana am lu mu ci. <laughs> waaw lu mu ci yokk lu mu ci yokk. Mm-hmm. idaafa si naawar. waaw en euh, li jar a bàyyi xel rek moom mooy. Mm-hmm. donc yonent bi sallallahu alayhi dañ koy yónni mu nekk njub. Mm-hmm. hudan. gis nga moo tax euh, même Ahmed Shawqi ba mu koy euh, tagg. dafa ne wulidal huda falka inaatu diya u wa famu zamanu tabassum wa sanaa u mm-hmm. gis nga faatu huda boo mu utilisé mm-hmm. borom bi subhaanahu wa taala tey moom la utilisé mu ngi wax ci yonente bi huwa allazi arsa rasula bil huda wa diinil xaq mm-hmm. nga gis ne moom yonente saa sallam dañ ko qualifié huda muy njub te njub buñ ko waxee mooy nit ki nekkinam mu mu war a nekkin nekk fii ci àdduna digganteem ak boromam digganteem ak ay moromam digganteem ak ñëpp loolu mooy njub njub dafa yaatu. Mm-hmm. la njub kenn du wax njub rek yamale ko ci diine. Mm-hmm. njub buñ ko waxee mooy nit ki comportement moom. Mm-hmm. bu xëyee ba ba muy gont loolu mooy njub. maintenant njub boobu nax amul politicien amul donc nitu diine xam nga ñooy toog rek ñu nitu diine bëgg ko am fuñ ko askanale. mais tey ima oustaz oustaz Alioune Sall boo ko jëlee ak li li ko yàlla may yëpp. ci wàllu njub. nga bëgg ko yemale rek mu war a nekk ci jàkka ji di jiite di mhm. sëlmal ak yu yem ci téere mhm. te loolu nga xam ne ñu boobu nekk ci moom mu war ko tey yóbbu tey assemblée nationale mhm. fexe ba tey ku fay wax bàyyi xel njub boobu njub boobu mu war a fexe ba yóbbu ko conseil économique et social ba tey lépp lu ñuy tëral xalaatam bi nga xam ne ci diine la ko nampee ñëpp jëriñoo ko mais loolu boo ko deful bu boobaa da ngay yàq effectivement cest à ci sens boobu la war wàllu diine ak wàllu politique. Mm-hmm. politique ku ko deful mu def la dafa am benn xalaatkat bu wax ne si tu ne pas la politique la politique te fera. Mm-hmm. kenn mënu ci mucc. Mm-hmm. maintenant ndax il faudra ñu comparer ñaar. Mm. parce que bu nekkee dafa ñuy wax pur muy mm. parti de l'unité du rassemblement. parti politique la. parti mm. politique amul tey ne donc tijaan yi ñoo ko moom wala murit ñoo ko moom. parti politique ñëpp ci bokk. chrétien beex ñëpp. parce que c'est association. d' accord il faudra ñu comprendre ko. dëgg la maintenant ndax am na président. Mhm. président bi nag donc mooy Cheikh Serigne Mouhamadul Moustapha mhm. président bi nag sañ ne léeg-léeg mu yëkkati kaddu mhm. wax ne bàyyi leen xel nangam xanaa looloo tax ci sañ-sañ yooyu mu euh, kon ñu dàq ki nga xamante ne mooy candidat bi demoon élection déedéet déedéet du du du moo ko dàq c'est-à-dire ah. xam nga parti dafa am nu peut être xam naa du loolu moo ñu tax a jóg tey gàmm ah, gi euh, moo ñu tax waaw non non c'est seulement pour leeral ne d'accord kon nañ ci génn waaw kay c'est seulement pour leeral lu nekk dafa am yoon. Mhm. xam nga même ci côté yooyu da ngay gis ne dafay am donc ay fédération. Mhm. dafay am congrès. am mhm. ñeneen donc ñoom ñoom ñooy tëral ni muy ni muy doxee. je pense que yooyu day jar ñu koy bàyyi xel bu baax a baax mais li nga xam ne mu laa bëggoon wan rek. dama bëgg wan ne diine. parfois problème boobu la ñu am fii Sénégal. mooy jusqu'à présent on ne parvient pas à faire la différence entre politique ak diine man damay wax ne bu kuy jël di wax diine politique rek. da daanu nga. Mm-hmm. diina ak politique benn la pièce monnaie la. Mm-hmm. face ak pile la kenn mënu leen séparer. d'accord tant que donc ñun surtout ñun ñi di wax ci wàllu diine. Mm-hmm. tant que loolu ñu ko ci bopp ñi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi rek dañuy échec. parce que lu tax ñuy échec mooy bu ñu demee tey ba gis tey imam Alioune oustaz Alioune Sall di wax ci politique ñu ne pourquoi mu wax ci politique. te xamuñu ne c'est un citoyen avant tout. Ah, un musulman comme tous les musulmans. Donc, il a la liberté de parler sur tous les sujets, parce que mm-hmm. c'est un citoyen. loolu laa bëgg nit ñi di bàyyi xel bu baax. d' accord d' accord macha allah Sass Mbacké loolu am na solo. am na solo loolu ah, tabarakallah ñu ngi ci sunu yu mujj xam ne léegi tey. waaw eh, waaw bisimilah. am na solo oustaz jërëjëf jërëjëf ci leeral yi eh, ni ngeen ko defee am na solo lool. Mm-hmm. ndax itam eh, da ngeen a tontu loo xamante ne sax du laaj bi. Mm-hmm. mooy diine kenn tàqaliwu ko ak politique. Mm-hmm. effectivement ñoo ànd te itam loolu ci sens de responsabilité la bokk. mooy li ngeen di jàngale ak li sëriñ bi di suuxat. ak message yi muy jàllale dañoo war a weesu ci wax ko waaye bokk nag ci ñiy fexe ba loolu taxaw ci penc mi loolu am na solo laaj bi may jëmewaat ci yéen ñaar ñëpp mu jëm ci daayira bi ak doxalinam mooy mhm. fu ngeen tollu ci eh, ginnaaw gàmmu gi maanaam waxtaan yi nga xam ne moom la Serigne Moustapha di def te lu jiitu loolu Serigne seex daan ko def mhm. ndax ñu ngi koy bind mhm. eh, nga xamante ne danañ ne bi mu jàllee daal eh, lii mooy conférence bi bind nañ ko def ko ci ay téere wala wala wala loolu fan ngeen ci toll xëy na bu ñu dee ñëw ci question boobu mën nañ jàpp ni Moustarchidine école la boo xam ni kenn tënk ko ci quatre murs waaye école la boo xam ni par exemple dafay génne ci enseignement tey mën naa la wax ni les années quatre vingt ba fi ma toog di wax ak yow. Mm-hmm. discours bu Serigne Moustapha def bind nañ ko ci yeexal ko ci texte. alhamdulilah xam ni tey boo bëggoon a gëstu ci itam sàngam am na benn xitaab bu mu ci def nga mën a dem ni mu ngi ci euh, euh, dat sàngam ci waxtaan sàngam mhm. ay junniy junniy conférence yoo xam ni te moom bokk na ci aadam dafa fonk culture euh, l'islam par exemple bala def waxtaan dana def benn xitaab la arabia pour valoriser al luga al arabia mhm. ndax Serigne Cheikh moo ñu jàngal ci champ de course nii yeneen ti bi avant muy ñëw yàlla préparé na langue bi six mille ans mhm. parce que dafa yëg ni lugatun atat min xadratin qudsiyatin wa lisaanu kulli muallimin yaxkiina boo xam ni nataxar rasul ak lam ca tudd ak yee ca aju xëy na xaju fi <laughs> eh, dañu war a valoriser waat langue boobu moom nag ci lancé boobu la nekk moo tax balaa def benn discours <laughs> ci benn eh, majal <laughs> dina def eh, alxitaab bil arabiya yooyu ñu ngi koy bind bu ñu fa jógee am na mutaabaa bu ñu ciy def parce que ñun ñetti phase la ñuy liggéey mooy phase avant naka la ñuy préparer nit ñi ba li ñu war a jëli ji mhm. ñu man ko taataan mhm. pour pour pour jariñoo ko mhm. phase pendant bi mooy asna bi naka la ñuy fexee bu ñu fa yeggee ñu mën a saisir li nga xam ne moom la góor gi di joxe mais phase après bi mooy mutaabaan bi ban suivi la ñuy def ca la fa génne ñu bañ ko fett si noonu kese kese mais ñu mettre ko en application mu nekk enseignement boo xam ne day nekk ci comportement euh, jullit yëpp waaye particulièrement ñi nga xam ni ñoom ñoo ko doon jëli loolu xëy na mën nañ ko ci joxe comme comme exemple. macha allah kon daal mën nañu wax ni du programme yi dem rek mu jeex ñu bàyyi ko ci basang yeeg tente yi mais lu fi sëriñ bi wax def nañ ko programme. parce que moom lu sëriñ Cheikh Massa wax def na ko programme. inculqué ko daairatul moustarchidine wal moustarchidat ba loolu sëriñ Cheikh sax toog na foire 2000 mi ngi ci archive yi mën nañ ko vérifier. Mhm. mu wax ni sëriñ Moustapha bi ma tuddee sëriñ Moustapha bu sëriñ Babacar. dama ko wax ni ko est-ce que xam nga li daayira bi réalisé ci wàllu spiritualité. Mhm. mu ne ko boo ko xamul man fii ma toog xam naa ko. te li ngeen liggéeyee du ñu bàyyi ay politique politiciens muur ko noonu. Mhm. Mhm. mu ne ko itam Moustapha bul nekk otage kenn. parce que ki leen in inspiré. c'est le plus grand intellectuel de tous les temps. incha allah loolu bi mu koy wax yaakaar naa. ñëpp eh, ñëpp ngi rey si kon loolu ay nataa'ij malmuusa la yoo xam ni tey man nañ ko joxe comme ay exemple mhm. pour wane ni al mustarshid wal mustarshidaat madrasatun tatalaqa fiha alqiyam arrabaniyatu alkubra mhm. wal axlaaq al insaniyatu al uzma maa sha allah incha allah tubarkàlla jërëjëf jërëjëf oustaz mhm. euh, Imam Ali waaw si na amar kon ak agsi nañ ci cat li xam naa ne léegi nag ñëw ngeen ci rajo bi auditeurs yaa leen di déglu xam naa seen kàddu yoo xam ne mhm. mooy kàddu yu fàttali mhm. kàddu yu woote kàddu yu soññe mhm. boo bëggoon a fàttali bëgg woote bëgg soññ looy wax xam naa rek euh, bu delloo ci wàllu fàttali ñu fàttali nit ñi ne ñu ngi jëm ci guddi gu mag guddi gu rëy te borom guddi googu moom moo tax yàlla bind lépp lu mu bind ndax wa iz araada allahu nachatana abana min nuurihi nuura nabil alami waaw mu nekk ku sell koo xam ne donc euh, yàlla sopp na ko lool mm-hmm. façon tagg bu nekk tagg na ko wa innaka la ala xuluqin azim mm-hmm. façon bu nekk wax na ko ci ci ci jëmmam moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom la ñuy donc di fàttali juddoom di fàttali à travers lui njub dëgg mbaax jikko yu rafet yëpp rek. Mm-hmm. Mm-hmm. comme jaadu na kooku bu guddeem jotee ñu dem ci ak jàmm ak dal comme ñu xam ne donc nit ñi war nañu duy leer mm-hmm. tàmbali ko lu nit ñi doon julli ci yonent bi saasam ñu gën ko dolli. war a tamit fexe ba di taataan jikkoom yi incha allah lu ñu la ne lii ma doon jikkoom. nga fexe ba xeeñcu tànk yi mu jaaroon jaar ci. bàyyi xel bu baax a baax njub yi nga xam ne moom la ñu bàyyi woon te waxoon ne tama euh, euh, bàyyil naa leen ñaar yoo xam ne ba teet a ngi ci ngoy. doo leen réer te mooy alkitaab wa sunnati yi hmm. maintenant nag li nga xam ne tamit dinañ ko dénk mbokk yi mooy incha allah rek kenn ku nekk fépp ngay gàmmu la nga jël sa matula matukaay ba mat sëkk hmm. waaye rawatina ñi nga xam ne incha allah fas yéene nañ ñëw fële ci champ de course hmm. ñu xam ne fas yéene nañ incha allah ci bésu gàmm gi teeru suñu kilifa Cheikh Seydi Mouhamadou Moustapha nga xam ne foofu diggante occasion la entre njaboot ak kilifaam mu mm-hmm. war a am intimité bu dox seen diggante mm-hmm. te loolu borom bi subhaanahu moo ko dogal beneen bi également ndax lu yonent yàlla waxoon yonent bi ne ko law kunta fazzan ghalizal qalbi mm-hmm. lan faddu min hawlik mu mel ne raxma boobu nga xam ne moom la yonent am ci ci xeetam nitu yàlla tamit yërmande boobu ak ñeewante boobu lay am ci ñu ko yàlla booleel ñu war ko teewu ci bëccëg bi incha allah guddi gi mm-hmm. ñu dem champ de course mm-hmm. bu ñu xëyee ci ëllëg si tamit def ziyaara mm-hmm. bu ñu noppee soog a delluwaat ci kër yi comme di ñaan ñëpp rek di invité ñëpp ci incha allah Tivaouane ci champ de course nit ñi ñëw ànd ak dal ànd ak tey teel a ñëw te xam ne incha allah yéene bu ñu am mooy fas yéene duy leer duy yiw duy tuyaaba comme kenn ku nekk bàyyi ko xel bu baax a baax te xam ne incha allah guddi la ci biir guddi yi mm-hmm. Mm-hmm. guddi la boo xam ne mën na defar àdduna defar sa àllaaxira lu mel noonu nag da nga koy waajal bu baax a baax mm-hmm. li mu laaj ci yiw li mu laaj ci waajtaay nga def ko ngir mën ko jëriñoo yàlla nañ ci yàlla yóbbu ak jàmm xam naa tamit rek vraiment te xam ne yii ni ñu ko organisé yëpp dafa am yoon boo gisee thème yi nga xam ne moom laa wax tudd ko sëriñ bi am na ñoo xam ne ñoom la dénk lépp lu dellu ci wàllu al irshad ak taalim mm-hmm. ñu tuddee ko lajnatu taalim wal irshad al islami mm-hmm. nga xam ne lépp lu dellu ci wàllu orientation ñoom ñoo ko yore mm-hmm. yàlla teg ci bopp bi imam Samba Diop yaakaar naa muy sa mbokk nga min ko bu baax a baax d'ailleurs donc moo ñu yebal sax ñu ñëw donc nga xam ne lépp si ñoom ñoo koy tëral ba bu gàmb gi passé lii nga xam ne moom la Mbàkke laaj léegi Oustaz Mbàkke ñu xayma ñoom ñoo koy xayma mm. tëral ko yi ñu ci war a bàyyi si irshadaat yëpp ñoom ñoo koy doxal donc ngeen salaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullah Seydina Issa yow bu fekkoon da nga am kàddu yooyu jox presse bi mm-hmm. di ko jox woy teew yi mm-hmm. eh, yan kàddu nga leen di jox waaw xanaa rek eh, di ko teg ci kàddu yi Seydina Omar indi mm-hmm. xam nga yaa ayyuha alladina amanu istajibu lillahi wa lirrasul ida daakum li maa yuxyikum mm-hmm. loolu modèle lu la boo xam ni alquran moo ñu ko jàngal mm-hmm. am na loo xam ne ku la ca woo rek yéene na la yiwu àdduna ak bu àllaaxira ñi mm-hmm. ñaan ñu beesal seen yéene ak xam ni dañu ñëw mission te seen mbir mën na fa jaare defaroo ba abadan waaye itam fi ñëpp war a defaroo boo fa defee loo xam ne itam mën nga fa yàqoo ba abadan it jaru ko boobu itam maa ngi ñaan suñu mbokk presse bi di suñuy mbokk parce que jamono lañ toll boo xam ni. lu nit def di nga ci boole presse. wallaay ndeysaan. ndax euh, jamono moom moo ko laaj wala xad wasalnaa lahumul qawl laallahum yatadakkaruun alquran mhm. moo ñu ko jàngal. Mhm. waaye itam ñu xam ni mission yeneen la ñu amee. Mhm. noonu la ko sëñ Cheikh fi réewoon. parce que mu ni ki mën a toog ci benn minute nga diviser information wax ne àdduna yépp a jot. Eh, c'est parce que yow yeneen nga. moo tax ñoom war nañu gën a sacraliser waat seen liggéey ci bu ñuy taataan si. ngir yàlla ak ñi mënul ñëw ñëpp mën ko jariñoo ñi ngi ci woo ñëpp di ñaan ñëpp ñu teewee ko incha allah ak dal bi ak yi mu laaj ci wàllu discipline yëpp. Mm-hmm. di rafetlu aussi itam invité gi ngeen ñu invité tey pour ñu mën a jàllale message bi. ci fursa boobu. ci turu daairatul mustarshidina wal mustarshidat ci turu lajna bi nga xam ni moo ñu fi yabal te mbokk bi tudd ko sànq. ñu leen di sant di leen wax. kulla amin wa antum bi xayr asalaamaaleykum wa rahmatullah macha allah aleykum salaam wa rahmatulah barakaatu xaaj Mbacke jërëjëf oustaz xanaa jaajëfal leen bu baax a baax ci waxtaan wu am solo bi nga xam ne indi nañ ko ku leen dégg ñuy wax xam ne ñu ne ci euh, kuréel gu organisé wu la mhm. ba noppi itam formé wu lool euh, euh, te itam loolu am na solo lool mhm. xam naa kon waajal ko rek gàmmu ga yow defe naa at mu jot ab diira ngi nii boo xamante ne ubbital burdu ngay dem ca zawiya Cheikh Sidaaju Malick mhm. tëjtal burdu bi nga dem ci jumaay sëñ Babacar waaye guddi gàmmu yaa foofee champ waaw loolu de moom yàlla baaxee na ma ba. Mm-hmm. at ma fa Serigne Cheikh mu njëkkee ñëw ba fii nu toog. Mm-hmm. moom mosuma ko rate. ndeysaan yàlla na gën a yàgg. amiin ba ma daan njëkk ñëw nag. Mm-hmm. dama daan indi sama Mercedes ba. dugg ca bunt ba ca ginnaaw. ubbi ko toog ci biir. at ya ci teg léeg-léeg ma jege si. ba léeg-léeg bis ba ma njëkkee xàmmee indi ma ci tànt bi. Eh, damaa dugg rek ñu ne ma toogal fii. ndeysaan ndeysaan. waaw ñu dox nag ba léegi léeg-léeg nu ne ma toogal foo bëgg a toog. Mhm. <laughs> ndeysaan. xam nga li nga wax léegi ci organisation daayira bi noonu la. Mhm. léegi dama wax foo bëgg a toog moo ñëwee ma ne man fii laa bëgg a toog ndax maa bëgg a jàkkaarloog sëñ bi. Mhm. ñun ma kon toogal fii. macha allah donc loolu loolu la yàlla dogal. tubarkalla maa ngi ciy am mbégte lool ndax dëgg yàlla am ci wàllu woowu. Eh, te itam sëñ Maamor junj na ko léegi. danga fa toog dund fa jaww joo xam ni ci wàllu xam-xam. Mhm. Mhm. Euh, ku ci mos dara rek ku ko mën a xam. dëgg la dëgg la. loolu ñuy jàngale balaax na sawq zalim. Mhm. wala dawq salim. loolu ko ko kii rek moo ko mën a xam. dëgg la li mu saf ki ko macce ko xam. jeex na <laughs> bu nu fa toogee ñaaree ni ni xam-xam yi di balleeg ni muy génne. ak fi ñu koy génnee. ak fañ koy jëlee. loolu benn affaire la. moo tax daal léeg-léeg ñu toxal suñu jëmm si ba foofa rek mm-hmm. Eh, toog jàpp suñu jàmbur. Mhm. foofu la ñu ko dooree eh, tabaarkàlla ba ni ñu fi ñëw fii. Mhm. yàlla ñu yàlla boole defal tawféex. kon li ci teg sëñ Mbàkke mooy rek. jërëjëf Oustaz sant la bu baax a baax jaajëfal la jaajëfal suñu gan ñi nga xamante ne ñoo ñëwoon tey ah, suñu eh, Omar Mbaye ak Serigne Issa ñoom itam ñoo ngi leen di jaajëfal bu baax a baax sant ñi nga xam ne ñoo ñu doon déglu jaajëfal la ci kanam tuuti ñu ànd ak waa bi ñu ñëw tënkal ñu xibaar ci français ak ci olof ñu door dellu si ci ñaareelu xaaju.